mi ak gàtt xaram naa xaraamal nañ alayhim ci ñoom shuhumahuma seeni graisse loolu ci yahud yi xaraamal nañ ci ñoom boromi we yooyu xaraamal ci ñoom graisse yi gàtt yeeg graisse yi gi illaa ma ndara la nga xam ne xamalat xen na ko zuhuruhuma seeni gannaaw maanaam li nga xam ne mooy graisse gi aju ci gannaaw awil xawaaya wala baljat yi la ca biir aw maxtalata wala la jaxasoo bi azmin ci yax yooyu yëpp yooyu mooy yi nga xam nañ ko ci ñoom zalika maanaam seen xaraamal giñ xaraamal lu leen neex ñoom <coughs> jazaynaahum lañ leen fayee bi baxiyim ci seen ak bew yiñ xaraamal ci ñoom luñ tànn xaraamal ko ci seen bopp ci la yàlla fay leen ci sababi bew googu fayee leen yii leen aaye wa inna naka ñun la saadiquuna way dëggal lañ ci xabaar yiñ leen di jox ak suñuy dikk fa in kazabuka ndam fendoon nañ la na weddi nañ la yow yonentu sallallahu alayhi wa ci linga nga dikkee faqul waxal wax leen e rabbukum borom seen zu rahmatin borom ak yërmaande la waasiatin bay aji yaatu buñ la fendooyee fàttali leen ne yàlla borom yërmaande gu yaatu la moo tax gaaweexu leen ci mbugal leen loolu tim oo leen ci gëm yàlla mu ngi ci ndax ànd ak kàccoor giñ def ak weddi gi loolu yëpp mu ngi leen di wan ne yàlla ngi jëflanteeg ñoom ci yërmandeem wala yuraddu deefu delloo ba suhu mbugalam bu dikkee anil qawmi walis nit al mujrimina ñe daway tooñ sa yaqul dana wax alladina ñaaña ashraku bokkaale nañ ñiy bokkaale yàlla dañuy wax ne law shaa bu sooboon allahu yàlla ma ashrak naa duñ bokkaale xéeféer yi dañuy wax ne bu neexoon yàlla kay ñun duñ bokkaale yàlla loolu wax ji dëgg la waaye ñoom jubluwuñ ci dëgg ndax bu fekkoon dañ cey jublu dëgg kon dañ gëmaale kon ñi gëm yàlla tim yàlla la soob pour ñu gëm waaye dañoo féeteerul rek moo tax ñuy wax loolu wala abauna du caageen suñuy bàyyi wala xaram na te duñ xaraamal min shay'in ci lëf bu sooboon yàlla ñun duñ weddi suñuy bàyyi duñ weddi bu sooboon yàlla tim ñun duñ xaraamal dara comme sañi suñuy bàyyi kon tim ñun li ñuy xaraamal bu sooboon yàlla kon duñ ko def liñ wax deug la waaye daño wax deug nyom xamne ñom batil lañ ci jublu te dañuy jaawale coobare ak ngërmaande yalla du ne lepp lu ko soob rek gërëm nako ba nga xamé ne mom moko ko soob ñoom loolu lañ bëgg wax dañoo bëgg wax ne ba yalla la soob te yalla lim soob daf ko ne loolu du deug motax danyi dañuy qiyas yàlla mbir yàlla dañ koy xiyaas ci seen mbiri boppu ñoom mbindeef yi ndax nit lu mu gërëm lu mu lu soob lu ko soob mooy lu gërëm ndax du soob lu may loo xam ne ni daf cee am njëriñ bu ci amee njëriñ loolu lay bëgg mu xam li bëgg mu xam tim loolu lay gërëm loolu mbiri nit ñi la waaye yàlla tabaraka wa taala ute naag loolu dara du xam lu ci nameelam la xamee waaye lim nam mu am na ci yoo xam ne daf koo nam mu te gërëmut ko law shaa allahu ma ashrakna lañ wax dëgg la bu sooboon yàlla ñun duñ bokkaale ndax bokkaale ci dogal yi la benn dogal du am lu may ci coobare ak am buñ moyee yàlla tim mënuñoo moy yàlla lu may ci coobare yàlla am waaye yàlla gërëmu ko comme na yàlla wax wala yarda li ibadi kufra yàlla gërëmulu jaamam yi ñu in tashkuru yardahu lakum bu ngeen ko bu ngeen bu ngeen gërëmee yàlla yàlla gërëm na loolu ci yéen mooy yàlla boo ko defee yàlla gërëmul loolu ànd ak ne moo ko dogal boo ko toppee yàlla gërëm na loolu ànd ak ne moo ko dogal kon danaa am lum dogal te gërëm ko am loo xam ne daf ko dogal te gërëmut ko <coughs> loolu ñaari xitaab la ñaari waxin la xitaabul machiati ak xitaabul xikmati xam nga yàlla wax na ne liman shaa minkum an yastaqim kum neex ci yéen mu jub loolu xitaabal xikmati la waaye wax na wa ma tashaauna illa an yashaa allahu rabbul alamin mënu leen a soob dara lu may dafa soob yàlla loolu xitaabul machiati la loolu coobareewam li nga xam ne moo ko coobare waaye liman shaa minkum an yastaqim mooy yow ba nga xamee ne yàlla daf laa bind jox la ay sabab yi muy yi muy soobtim daf koo lënkaleeg ay sabab boo jëlee ci sabab yooyu boo buggee baax mën ngaa baax kii wax ne bu sooboon yàlla ma jub bu sooboon yàlla kay eh, ma mel nangam bu sooboon yàlla du ma ko moy bala ñëw na gëm ne li muy wax noonu dëgg la ci moom mu xiif toog rek ne bu soobee yàlla danaa danaa suur waaw bu xiifee du toog mukk ne bu soobee yàlla danaa suur te xam na ne mënut am lumay may cooba rek yàlla moo ko moo ko ko defal waaye faw mu jël ay sababam dana jël xaalisam dana dugg ci marché bu duggee marché ba indi li mu war a togg sax teg ndawal rek du tax mu xaar ndawal li ñoral boppam moo koy togg moo bu ko toggee ba pare tamit dana ko jël mooy lekk mooy mooy sàqar bi mooy def yooyu yëpp buñ àggee ci topp yàlla nag a ne ah yàlla de moom la neex rek waaye bu ko neexoon ñu jub ko neexoon ñu nangam dégg nga te boo bëggee lekk yow yaay def sa sabab yi moo tax ñaari xitaab moo nekk foofu lépp lu am yàlla ko amal ci ci coobareem lay amee waaye nag yàlla jox na la euh, moyen pour ngay jëf ndax bu taxutoon nag loolu du la mbugal mukk ci lu la sant te defuloo ko moo tax ñoom wax ji ñu wax ne bu sooboon yàlla law sha allahu ma ashrak naa bu sooboon yàlla duñ ko bokkaale loolu dëgg la waaye kalimatu xaqin urida bil batil wax ju dëggu la fekk ñoom liñ ci jublu du dëgg kadalika comme naka noonu ne nit ñi weddee nañ la weddee kazaba la weddee alladina ñi ñi nga xam ne min qablihim jiitoon nañ leen noonu lañ weddi woon ñi leen jiitu seen yonentu it weddikat yi noonu lañ leen weddi woon xatta daaqu bañ mos ba sanaa suñuy mbugal gu tat xulal indakum ndax nekk na fi yéen min ilmin ci xam-xam ndax da ngeen am xam-xam bu ngeen war a leeral bu mën a tegtale ne li ngeen wax ne yàlla moo moom la soob ndax am ngeen luy tegtal ne lam soob noonu ba ngeen def ko ndax am ngeen tegtal bi wane na gërëm na ko fa tuxrijuhu te ngeen génne ko lanaa ñeyaan ñu amuleen benn xam-xam bu leer ci loolu in tattabi'una topp leen ci loolu illa zanna ndera njortu rek wa in antum déet yéen illa taxrusuna ndera ngeen ngeen di duut ngeen di fen xul waxal li ma waxoon daam ne saar bi boo gisee bëri na lool ndax yàlla mooy dàgg ak yi di wax yonentu wax leen sallallahu wax leen nangam wax leen nangam loolu daf lay xamal ne yonentu bi duwut ne moom moo wax alquran bu doon wax alquran dafay wax waxam rek waaye du fi indi fukk fu ko yàlla di waxee ne ko wax leen nangam wala waxleen leen nangam <coughs> qul waxal bu fekkee ne yéen amuleen benn lay ci loolu fa lillahi ñeel na yàlla al xujjatu lay al aji mat bay aji jot falaw shaa bu sooboon yàlla seen ak njub la mu jubal leen ajmaina mboole seen bu fekkoon ne soob na yàlla pour mu jubal ni ñëpp kon yàlla jubal ni ñëpp waaye yàlla loolu soobu ko mu ne bàyyi ne ñooñ gëm yàlla ak ñooñ jub foofu ngeen ma ahlul imaani wa ahlul hidayati aqallu min gayrihim وما الحكمة في هذا إن الإيمان عزيز والشيء إذا قل يكون عزيزا وإذا تكاثر عند كل أحد يكون غير عزيز عند الناس فلما أراد الله أن يكون الإيمان عزيزا والمؤمن عزيزا جعل المؤمنين أقل من الكفار وأيضا ليظهر غناه واستغناءه عن كل أحد الله غني لو كان مفتقرا لشيء لافتقر إلى كثرة المسلمين وكثرة المؤمنين ولكنه حيث أنه غني يكفيه قليل من الناس يكونون مسلمين لو كان الناس كفارا جميعا ما ضره ذلك فقلل المسلمين على الإيمان ليري استغناءه بنفسه عن كل أحد وثالثا ليري قدرته فإن أهل الإيمان وهم الأقل أقل عددا وعددا ومع ذلك فهو قادر على حفظهم حتى لا يضرهم الكفار وهم أكثر فالكفار أكثر أكثر عددا وسلاحا وعلما ومكائدا والمسلمون قليلون بينهم ضعفاء فقراء أكثرهم جهلاء أكثرهم ومع هذا حفظهم الله حتى أن الكفار ما قدروا لهم على شيء بل تجد الكفار دائما يخافون المسلمين والمسلمون لا يبالون بهم فإن فإن قيل إن هذا ينافي ما تقدم بالأمس كتب على نفسه الرحمة إذا كانت رحمته سبقت غضبه غضبه وكان الكفار أكثر من المسلمين فكيف ترجح الرحمة على الغضب نعم قلة المسلمين بالنسبة إلى الإنس والجن فقط وإلا فالملائكة كلهم وحور العين والملو الأعلى أكثر من الإنس والجن بكثير وهم كلهم أهل الإيمان نظرا إلى ذلك فأهل الرحمة أكثر من أهل الغضب ولكن أهل الغضب هم أكثر في الإنس والجن ولو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين قل هلما أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون يشركون قل تعالوا اتلوا ما قل تعالوا اتلوا اقرأ ما حرم ربكم عليكم هذا الذي حرم كفار قريش من البحائر والسوائب كذب وافتراء الآن تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ذكر عشرة أشياء لا تشركوا به شيئا الذي أوجب الله علينا هو الإيمان به وحده ولا نشرك به شيئا الشرك هو أكبر الكبائر سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال أن تشرك بالله شيئا وهو خلقك وأن تعق الوالدين وأن تزاني حليلة جارك الشرك هو أكبر الكبائر وأكبر الموبقات وبالوالدين إحسانا أحسنوا بالوالدين إحسانا بعد الشرك العقوق عظم العقوق حتى أنه ما ذكره لا تشركوا به شيئا لم يقل ولا تعقوا بل وأحسنوا بالوالدين إحسانا أبغض أبغض الحقوق حتى أنه ما سماه ولا تقتلوا أولادكم بالوأد من إملاق من أجل إملاق كذلك ما كان يرتكبه الكفار من قتل الولد مخافة الفقر لا تفعلوا هذا فالله هو الرزاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن كذلك لا تقربوا الفواحش أبلغ ما أبلغ من لا تأتوها لأنها كبيرة حرام ومقدماتها كلا حرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم زنا العينين النظر وزنا اللسان الكلام وزنا الأنف القبلة وزنا اليدين اللمس وزنا القلب حديث النفس وزنا الرجلين المشي وكل هذا يصدقه الفرج أو يكذبه إذا دخل الفرج زنت هذه الجوارح كلا وإذا لم يدخل سلمت هذه الجوارح فإن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن علانيتها وسرها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كالقود وحد الردة ورجم المحصن الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل الأولاد والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه خمسة ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون تتدبرون وإذا نظرت بالمحرمات كلا وجدتها ترجو إلى القتل فإن الإنسان لو لم ينهى عن قتل النفس لكثر القتل كما قال ولكم في القصاص حياة ولم ولو لم يحرم الزنا لتقاتل الرجال على النساء كما تفعل الدواب والبهائم والإنسان أقوى وأكثر كيدا فيقع القتل كثيرا والسرقة من تعرض لمال شخص تعرض لقتله لأن آه، يقتل هو وحيث أن الشرع أوجب القطع بالسرقة من قطعت يده ربما يؤدي ذلك إلى مماته وشرب الخمر من شرب الخمر سكر وفقد عقله وربما قتل أو قتل لا يشعر كل المحرمات ترجو إلى القتل والله لا يحب القتل لأنه يحب بقاء العالم إلا ما إلى إلا ما شاء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن هو ما فيه صلاحه حتى يبلغ أشده بأن يحتلم حرم الله على الأولياء أن يأكلوا أموال يتاماهم فليحفظوها لهم إذا بلغوا الحلم وبلغوا الرشد سلموا إليهم ما لهم كان واحد من الصالحين يحفظ كتاب الله ويكتب المصاحف دائما قال إنه كتب أربعين مصحفا يرى الذباب ربما يشرب من المداد على الخط إلا من هذه الكلمة ما رأى الذباب يشرب منها خوفا من مال اليتيم والتعلم من كتب اليتيم جائز عند أكثر العلماء ومنهم من منع وأوفوا الكيل والميزان بالقسط إذا كلتم للناس أو وذنتم لهم بل تعدلوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه كما ورد في الحديث والإنسان إذا تفكر في كيفية الوزن يجد في نفسه واعظا يمنعه من البخس والنقص كيفية الوزن هكذا الوازن غالبا يعقد هذين الأسبوعين ويمد الثلاثة وهذا الله كأن الوازن دائما تخاطبه يده الله الله الله الله وأشد ما يعذب به العبد في قبره البخس والنقص في الكيل كان رجل يشتغل بالكيل والوزن دائما ولما حان وفاته لقنوه الشهادتين وصار يقول جبلان من نار جبلان من نار إن جبلين من النار على لسانه منعاه من أن ينطق بالشهادتين وذلك لسان الوزن الذي كان يزن به ومن أكثر من قراءة القرآن وتعود ذكر الله ربما يستوجب حسن الخاتمة كان رجل يكسر قراءة القرآن ولما حضرته الوفاة كلما قيل له لا إله إلا الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلى قوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى صار يكرر هذا حتى مات وكان واحد يبيع الخبيثة ويقول دائما حزمة بفلس حزمة بفلس حزمة بفلس فلما حضرت الوفاة كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال حزمة بفلس حزمة بفلس على ذلك ومات على ذلك وكان شاب دين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة لقنوه كلمة الشهادة فعجز عن النطق بها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلقنه ولم يقدر أن ينطق بها فقال للصحابة ما تعرفون من عمله قالوا ما نعرف إلا خيرا أثنوا عليه خيرا فكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل له من والدين قالوا نعم أمه موجودة فدعا بأمه أطردين عن ولدك ولدك هذا قال لا لا لا سام لا, لا سامحه الله ولا غفر الله له قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إن سامحته نطق بالكلمة ويدخل الجنة وإن لم تسامحيه أسامحه أبدا فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بحطب أوقد نارا وقال أحملوه فأدخلوه في النار فأدخلوه في النار فلما حملوه وأرادوا إدخاله في النار قال سمحت له سمحت له فنطق بالشهادتين حق الوالدين علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا ترضى أن ترى ولدها تأكله النار وإذا قلتم في حكم أو غيره فاعدلوا بالصدق ولو كان المقول له أو عليه ذا قربى قرابة قرابة وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون هذه عشر خصال وأن هذا الذي وصيتكم به صراطي مستقيما هذا هو صراط الله المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الطرق المخالفة له فتفرق تتفرق تميل بكم عن سبيله عن دينه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذا هي السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله تبارك وتعالى منع الأمة من التفرق بالعقائد لأن سبيل الحق واحد والسبل المتفرعة كلا سبل الشيطان افترقت اليهود كذا من إيمان نيجم imaan أك نيجوب نيو ak néew yàlla nee na walakin aksara naasi laa yaalamuuna mu ne luy xikma ci loolu mu ne imaan dafa foor te lu foor toujours dafay néew bu mbir bu baree ci loxo yi rek nit ñi dootuñ ko faale moo tax nit ñi léeg-léeg lu foor yombu leen bañ oyofal ko mu ne ba yàlla bëggee gëm yàlla nag nekk lu tedd fa nit ñi ki gëm yàlla yi nekk fu tedd ku tedd ci nit ñi ci la def xéeféer yi ñi weddi gën a bëri ak tim beneen xikma moo ngi ci pour yàlla xamale ne yàlla doylu na wëlis way gëm yi ak seen gëm yàlla ndax yokkul yàlla dara bu fekkoon ne yàlla soxla na jëm ci dara kon mu soxla bërik way gëm yi waaye soxlawul jëm ci dara doylu na walis loolu yépp moo tax mu tànn rek ñi gën a tuuti ñoo ñi gëm tey jii fi ne nii àddina paase na juróom-ñaari milliards benn milliard rek ñoo ci jullit ak mbenk njenk yi nekk ci biir benn milliard boobu nag bu fekkoon ne nit ñëpp dañoo weddi yàlla du wàññi yàlla dara jàng nañ ko démb xadis yi yonent sallallahu alayhi bu fekkoon ne ñëpp dañoo dajee amay xolo yi gën a ragal yàlla ci jaam yi du ci nguur ak bu ñëpp daje woon amee xol ki gën a kàccoor ci jaam yi du wàññi ci nguur ak yàlla gi dara kon way gëm yi gën a bëri du wàññ du du yokk yàlla dara buñ wàññee ko it du wañ yalla dara and ak mune benen hikma ñettel mu ngi ci pour yalla wone mom katanam and ak ñi gëm yalla liñ tuti tuti ak seeni pexe ak seeni ngànnaay lu neew neew waxtu wu nekk noonu yee leen noonu yaa noonu yaa leen di ragal ñi wedd yalla ak ñi pexel ñi gëm yalla ño gëna bëri bëri ëpp alal sax ëpp xam-xam ëpp lool yépp ño gëna benno ñi gëm yalla julit ñi lu neew lañ te ñu bari ñu ñàkk lañ bari ñu réer ànd ak loolu yëpp yàllaa leen wattu ci biir noonu yooyu nga xam ne buñ sañoon jullit ñi dañu am bàyyi feneen wax na xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam surtout bi roox bi yàlla dimbalee na ma ragal mu ne ragal googu nga xam ne moom la yàlla dimbale woon yonentu ragal googu ba tey moo dox diggante noonu lislaam yi ak jullit ñi luñ bari bari rek ñi ngi am ragal ci jullit ñi dangay gis boo xam ne ay million lañ waaye buñ gisee fukki jullit ñu bëgg a ànd sax ñu bëgg a am problème jàpp nañ ñu buñ àndee am jàmm loolu yëpp eh, mujiza yonent bi la sallallahu alayhi wasallam bu yàlla desal ci jullit ñi mu leen di défendre ak luñ néew néew rek yàlla ngi leen di eh, def ragal ci xoli noon yi mu ne waaw loolu nag est-ce que uutee wutëkk kataba allah kataba ala nafsi rahma ne yàlla dafa bind ci moom boppam waral ci boobu yermande yermande googu est ce que dàqoxantewut ak ñi gën a gëm yàlla gën a néew waxtim ne yonent bi sallallaahu ne yàlla njéggalam jiitu na meram bu fekkee ñi gën a weddi ñoo gën a bëri ñi weddi ñoo gën a bëri ndax loolu dàqoxantewut ak ne yàlla dafa waral boppam yërmaande bàyyi ne waaw boo xoolee ci nit ñi ak jinne yi ñi gëm yàlla ñoo gën a tuuti waaye boo xoolee ci malaaka yeeg xuru ayn yeeg waa malawul ala ñoo ñoo gën a bëri nit ñeeg jinne yi te ñoo ñëpp dañoo gëm yàlla kon ba tey la yàlla wax ne yàlla waral na ci boppam yërmaande dàqwantewut waaye ci biir nit ñi nag toujours nit ñi moom ak jinne yi ñi weddi ñoo gën a bëri waaye yërmande yàlla ba tey moo gën a yaatu bu sooboon yàlla falaw shaa bu ko sooboon moom yàlla seen ak njub kon mu jubal leen xul waxal halumma teewal leen shuhadaa akum seeni seede alladina ña nga xam ne yashhaduuna dañ seede anna yàlla xarama na haada lii lay ngeen yéen fa in shahidu ndam seede nañ ñoom loolu fala tashhad yow bul seede maahum ànd ak ñoom ndax li ñu seede du dëgg wala tattabi bul topp ahwa alladina bànneexi bakkan ak ñi nga xam ne kazzabu fenloo nañ bi ayatina ci suñuy kaawteef walladina ak ñi nga xam ne laa yuminuuna gëmtuñ gëmuñu bil axirati wahum ñoom yaadiluuna dañ bokkaale bi rabbihim seen borom ndax dama am ñeneen yuñ yuñ ut di ko amele yàlla kon bokkaal nañ ko moom qul waxal yow muhammad ne taalaw ñëw leen atlu ma jàng maa xarama la xaraamal na rabbukum borom seen aleykum ci yéen ñëw leen ma xamal leen li seen borom xaraamal ci yéen xevéer yi quraysh ñoom wax nañ yiñ ut ay gëlem ak i yuñ bàyyi ne kenn du leen laal lii kenn du buñ ko rayee jigéen du ci lekk xaraamal yu leen neex waaye ñëw leen man ma wax leen nag li nga xam ne yàlla moom la xaraamal muy xaaye yoo xam ne téere yëpp yu njëkk ya maanaam làmboo ko li yàlla xaraamal yooyu mu tudd fukki mbir allah tushriku bu bokkaale bii ci moom shay'an lëf bu leen bokkaale yàlla ak dara bàkkaat yëpp bokkaale yàlla ci gën a màgg wéetal ko ci jëmmam ci meloom ak i turam laaj na yonentu sallallahu alayhi wasallam bàkkaar yi lu ci gën a màgg mu ne bokkaale yàlla ak leneen te la mbind dëngee say ñaari waajur njaalo ak sa jabari dëkkandoor njaalo lu ñaaw ñaaw booba gën a ñaaw ndax xàq xàq ba ca ne xàq dëkkandoor bi moo ko gën a diisal wa bil walidayni te ngeen rafetal ixsaanan ak rafetal jëm ci seen ñaari waajur na ngeen baaxee seeni waajur bàyyi mu ne gis nga yàlla dafa wax ne ci bopp bi muy wax ci bokkaale daf ne wala tushriku bi shay'an waaye dëngee ñaari waajur dafa xeeb dëngee ba waxut bu leen dëngee seeni waajur sax dafa wax ne na ngeen rafetal jëm ci ñoom baatab dëngee bi sax bugg wax ndax xeeb sip gim ko sib na ngeen rafetal jëm ci ñaari waajur gépp ak rafetal wala taqtulu bu leen rey awlaadakum seeni doom naka arab yi doon def amee doom gas ko suul ngir ragal ñàkk wax nañ ci démb bu leen def loolu ndax kiy wërsëgal mooy yàlla moo tax mu ne nar nahnu narzuqukum wa iyaahum ñun ñoo leen di wërsëgal ak ñoom fale wax ne na nahnu narzuqukum wa iyaahum yëpp yu rod na ñun ñooy wërsëgal doom yi ñoo leen di wërsëgal fii mu ne man maa leen di wërsëgal maay wërsëgal doom yi wala taqrabu bu leen jege fawaaxisha ñaawteef yi bàkkaar yi mag yi ni ko mel ni njaalo maa zahara la feeñ na min ha ci moom wa batana ak la nëbbu buleen ci jege dara buleen leen waxut bu leen ko dikkee sax waaye bu leen ko jege la wax buleen ko jege ndax jege gi moo ci àggale moo tax lépp li nga xam ne moom mooy buntu yi ci àggale ku ko bugg moytu danga nga ci da ngay da ngay da musal sa bopp ci loolu da ngay moytandiku loolu yu bëri am na ñoo xam ne dara dugalu leen ci lu may mbir liñ ci ragal rek mooy nga àgg ci nangam te man mën naa cee mën cee dugg te duma àgg ci loolu fàtte nga ne kenn nga ci jaam yi fàtte nga ne bari na ñoo xam ne foofu rek lañ yàqulee commencé ci ndaw yi rek ah lii dara nekk ci man damay toog rek waxtaan ñi kay man waaw boo toogee waxtaan bu yàggee seytaane oola ci leneen waaw loogu waaye ji wax ne nazaratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaaw fa liqaaw tukkal àddina mën na ca teg moo tax muqaddimaat yi nga xam ne mooy mooy buntu pour àggale ci yooyu yëpp da ko war a tëj lépp loo xam ne daal bugguloo cee àgg la koy yom lay yombal àgg ci bukk ci dugg mu ne yontu salaay salaam nee na njaalooy bët mooy xool njaalooy làmmiñ mooy wax njaalooy bakkan mooy xeñtu njaalooy loxo mooy laal njaalooy xol mooy waxtaane ko ci sa xol baana yaa ngi imaginer benn yaa ngi ca njaalooy tànk mooy dox loolu yëpp nag pëy moo koy dëggal wala mu fenloo ko waaye bu demee ba pëy dugg ci pëy yooyu yëpp boole nañ ñoom njaalo kon kenn mu ci ci cër yooyu yëpp bu fekkee ne nag loolu pay bi dëggalu ko cër yëpp mucc nañ te yàlla dana baale bàkkaat yu mag yi ci teet bàkkaat yu ndaw ci teet bàkkaat yu mag yi bu leen jege kon ñaawteef wi la wax bu len ko jege waxu bu len ko diggal sax waye bu len ko jege loo wul mom man nga ci ñak la ci feñ ak la ci neub lool moy sabab yëpp ak buntu yi nga xam ne ku ko ubbi rek man na àggale ci loolu nga ñak ko ubbi wala taqtulu bu ray an-nafs bakan allati nga xam harama haraman Allah na allahu yàlla bil haqq ci deug kenn warta rey bakkan lu may bakkan boo xam ne dañ koo rey ci dëgg te bakkan bu ñuy rey ci dëgg kat du ne nit moo koy def ku rey bakkan ñi wala ray du ne nit mooy fayul boppam loolu dafay am nguur moom mooy atte ci loolu bakkan ndax kii sax ndax liñ wax ne moo rey ndax dëgg la dégg nga ba pare ñi door cee teg dañ ca war a teg wala koo xam ne ni dafa murtat ba tey kooku duur ne benn nit mooy war a dem atte ko murtat ne daf ko war a rey loolu nguur ak jullit moo koy moo koy atte waaye gis diw dafa murtar rek dañ ko war a rey nga dem rey ko ñi rey la yàq nga lu bari te da ngaa xoog ne da ngay wala koo xam ne nii dafa njaala te fekk sangeew na ñi war koo rey ba tey loolu it du ne eh, du ne ki loolu laal moo ko war a def loolu yëpp nguur a koy atte li yàq tey ci bëri li ko yàq mooy ñu bëri jël seen bopp def seen bopp ay attekat lu mu leex rek ñu ne mën nañ dem atte ji ko waaw te bu fekkee ne bàyyi newoon na bu fekkee ne boo aayee naan sàngara sax ñi rey nit yow waroo aaye ndax aaya la yonent bi sallallahu alayhi wa ku gis luñ luñ sib na ko soppi ci sa loxo boo ko mënut ci sa làmmiñ boo ko mënut ci sa xol loolu dafay wane tartib borom xam-xam yi seeni soppi bala ñoo soppi ci mbir soppi ci loxo autorités yi ñoo ko moom duur ne wu fi ku nekk la boo gisee loo nekk di rek nga dem soppi ko nga romb ci mbedd mi gis ku téye sàngara rek nga ñëw mbéj ko mu yóbbu la police ñu tëj la moom mu continuer dina te fekk yaa tooñ ndax atte boobu nekkul ci sa loxo soppi ci loxo kon nguur yi ñoo ko moom soppi ci làmmiñ borom xam-xam yi te du borom xam-xam yépp borom xam-xam yi nga xam ne bu ñu waxee ñi déglu leen buñ teree ñi buñ buñ buñ teree ñi ñi bàyyi boo demee nag ba nga xam ne yow boo teree sax euh, fayal sa cigarette mu ne la kaay fay ko waaw sànni sa butéel bi mu ne la kaay kaay kaay kaay laal ko ba boobaa yow amuloo ndigal ci loolu nala la naqadi rek ci sa xol loolu loolu doy nala la ci ku gëm yàlla daal warta gis lu ñaaw mu mu neex ko boo demee ba mënoo ci dara mu naqadi la ci sa xol sufiyanke yi dañoo wax ne ñoom nag àgg nañ ci naqadi sa xol sax àgg nañ ci ne bu la naqadee seen xol ñoom ñi soppi ko maanaam mën nañoo gis dara mu naqadi leen rek seen xaatir bañ ko yàlla jubal ñooñu wala yàlla soppi loolu digal leen lu baax tere lu bon dafa am ay daraja bu fekkee ne boo teree lu bon lu bon li ngay tere da fiy jugee lu baax ñëw boobaa boobu la war na bu fekkee boo teree lu bon lenn ci lu bon li dana fi jugee donte lépp jeexut ba tey baax na bu fekkee boo teree lu bon lu bon lu em ni moom mooy ñëw wutee nañ ci ndax loolu war nga koo tere sax wala waroo ko tere bu fekkee boo teree lu bon lu ko gën a bon mooy ñëw sa tere lu bon woowu sax borom xam nga dañoo wax ne dafa xaraam fekkee yow boo teree lu gën a bon mooy ñëw baa yow sa tere boobu sax dafa xaram da cee war a euh, euh, noppi moo tax yu bari kenn du ko atteel sa bopp bokkaale yàlla dëngee ñaari waajur ray say doom njaalo ray bakkan bu mën a jot nga xam ne yàlla xaraamal na ray ko lu may ci dëgg yooyu mu ne zaalikum yooyu seen yooyu mu tudd wasaakum dénk ne leen bii ci moom yàlla kañ na ne yéen na ngeen di xelu loolu yàlla dénk ne leen ko ngeen xelu mooy ne yii yëpp yow boo ci xoolee ci sa xel mu rafet rek man ngaa dem ba xel aaya la nga ne doo ko def boo xoolee bàyyi ne boo xoolee yu xaraam yëpp nag danga fekk ne yëpp dafay dellu ci rey rek lay dellu doomi aadama mu fekkoon ne terewuñ ko rey bakkan kon rayante yi dana bëri da am na ñoo xam ne luñ mel rek danaa ko rey loolu lañ ci teg waaye yàlla ne wala kum fil qisaasi xayaatu yàlla defal ne leen fayeeku ku rey ñi rey la mu ci la def dund ci li gën a fasaa dañuy wax ne moo gën a fasaali arab yi doon wax alqatlu anfaalil qatli ñoom loolu lañ doon wax eh, ray daal moo gën a dàq rey yàlla ne defal nañ leen ci dundu ci fayeeku defal nañ leen ci dund kon du ray ak rey rek waaye ray ngir dund bu yàlla mu ne bu bu ah, xaraamalatoon njaalo kon góor ñi dañ rayante ci kaw jigéen ñi comme ni nga gis bàyyi may di def te doomi aadama ñoo ëpp bàyyi may doole ëpp leen pexe moo tax ñi xaraamal ko sàcc kuy gaarlu alali jàmbur sàcc mën na laa rey mën nga koo rey ndax bëri na ñu rey nit te rey taxu leen a jóg dañoo nëbbatu dem di sàcc ñi gis leen ñi ragal ñi gis leen ñi fàdd ki leen ki ñu doon sàcc ray foofu te rey taxu leenoon a jug sàcc moo leen taxoon na jug waaye ci ray lay mujj sariya waral na dagg loxoy kuy sàcc te kuy sàcc ñi dagg loxoom mën na loolu mën na koo àggale ci dee kon kay sàcc bi koy àggale ci loolu ba tey moom moo indi rey naan sàngara ku naan sangara maandi ku mandi tàggoog sa xel ku tàggoog sa xel mën ngaa rey mën ngaa defit luñ la rayee te doo yëg moo tax mu ne yu xaraam yooyu yëpp da nga gis ne dafay dellu ci rey te yàlla bëggul ray ndax yàlla dafa bëgg a fii àddina bi ba fu mu ko soobee yàlla ne wala taqrabu bu leen jege maalali tiimi alali jirim waxut sax bu leen ko lekk bu leen ko jege sax la wax illaa billati ndara la nga xam ne hiya moom ahsanu moo gën a rafet mooy ci loo xam ne nii daf koy euh, garde di ko sàmm jirim boo xam ne dafa am alal ci nga ko ci yaxantul te doo laal mukk cosaani alal gi xataa yabluga ba mu jot ashuddahu dayom mu dem ba xam am mat ci yaramam mat ci xelam tim waaye bu dul loolu wala tuutu sufa amwaalakum te boobu sa alal ji alal ji jëriñ wi la yàlla di wax ne bu leen jox jirim ji seen alal ji te wax ji mooy bu leen jox jirim gi alali jirim bi wala tuutu sufa amwaalakum waxul wala tuutu sufahaa amwaalahum te fekk amwaalahum lay wax bu leen leen jox seen alal yi ñoom waaye dafa foofu alquran daf ñuy jàngal ne alali kenn ku nekk alali mbooloo mi yëpp la ndax alal ku ci yàq rek alali mbooloo mi yëpp nga yàq moo tax amut kenn koo xam ne nii am nga droit yàq ci dara ku génnoon léegi dem ci mbedd mi jël ay euh, euh, pièces yi kayiti dix mille dajale ba mu bëri nga taal police dana la jàpp foofu ndax bi ci sa loxo la nekk yow dénkaane nga ci waaye xaalis bi ñëpp ko moom ndax dafa war di dox dox boobu mooy dundal euh, économie bi moo tax alal li ñëpp la moo tax mu ne am waalakum te fekk am waalahum la waaye bu leen jege alal li jërim bu ñu demee nag ba mat fa in aanastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwaalahum bu ngeen yeggee ci ñoom xàmmee dem nañ ba ndégg ñor nañ boobaa yàlla ne boobu léegi jox leen leen seen alal yi ñoom te fale bu leen leen jox seen alal yéen la doon wax te fekk alalam ji la waaye bu demee ba mag ba ba man nag da nga ci déggee sax beneen dégg mooy ne bi mu demee ba mën a gut alal ji da ngaa war a jëflanteeg moom comme alal lii sa alal la xam nga sa alal yow pare woo pour yàqu ko bu mu demee nag ba xàmmee ba man ba am ay soxlaay boppam fàttalikul ne alal ji alalam la nga delloo <coughs> bu leen jege alal yi jërim buñ demee ba mat nag am seeni soxlaay bopp ngeen jox leen seen mu ne kenn ci saalihin yi daf daan bind kaamil bind na ñeen fukki kaamil waaye dafa sellu ci selloom ne buy bind kaamil weñ yi nga xam ne léeg-léeg dañuy ñëw ci kaamil bi di taxaw di naan ci ci daaji sukar soosu masu ñoo taxaw ci baat baat bi yàlla di aaye bu leen bu leen jege alali jirim mu mel ni weñ yi sax dañuy moytandiku dañuy moytandiku baat bi aaye loolu comme ñoom moytandiku nañ baat bi aaye loolu comme ñoom dañ dañ moytu dañ moytu yëf yi ñoom jegewuñ ko waaw fu na ngeen matal al kay la peese wal miizaana ak mandaxa bil qisti ci maandu bu ngeen di peese na ngeen matal pese gi bu leen xaj ni ñi seeni xaq laa nu kallifu euh, warloluñ naf san togguñ naf san bakkan illaa wusaha ndere kàttanam li nga xam ne nag yaa ngi peese ci njuumte la amee waaye yow jubloo ko yooyu nga xam ne yooyu moom yàlla daf koy dana ko jégale bàyyi mu ne peesekat bi sax doomu aadama yi buy peese sax dana gis ne ni muy def ni muy def loxoom rek ni muy def loxoom di wane ne affaire bi am na xam nga danga doo naa nii am na de mu ne baat bi nga def nii sax sa loxo bi mu ngi bind allahu sa loxo baa ngi lay fàttali kon na nga nga na nga ragal yàlla na nga ragal yàlla yàlla ci sa peese gi sa weer sa loxo bi rek taxaw na di la fàttali yàlla mu ne dafa am ku doon peese ba nga xamee ne muy peese nag di wàññi peese gi di ci xuruj ba mu demee ba dee jot ñi koy waxal laa ilaha illallah buñ ne ko waxal laa ilaha illallah rek mu naan jabalaani mina naar ñaari doji ñaari ñaari ñaari doji safara ñaari ñaari montagne safara ñaari montagne safara dafa ñaari montagne safara ñoo taxaw ci làmmiñam yi di ko aaye mu wax shahadatu laa ilaha illallah anna muhammad rasulullah bàyyi ne ku bëril jàng alquran baaxoo tudd yàlla loolu mën na koo may mujj gu rafet mu ne dafa am góor oo xam ne dafa bëri woon di jàng alquran ba dee jotee ñu naan ko waxal laa ilaha illallah waaye mu buñ ne ko waxal laa ilaha illallah mu ne taama anzalna alayka alquran tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ba ci allahu laa ilaha illa huwa lahu alasmaul husna àgg na ci lañ ko doon waxee lañ ko doon sant waaye moom mu ngi koy mu ngi ci àggee ci alquran jëm mii noonu rek di ko jàng mu ne waaye dafa am koo xam ne ni moom daf doon jaay ay say ay ay say pon rek waaw ba dee jotee ñu nga wax waxal laa ilaaha illallah mu naa waaye say say say ci dërëm say ci dërëm say ci dërëm say ci dërëm loolu rek la topp di wax moo tax kuy miinal sa làmmiñ miinal sa làmmiñ lu baax ndax dana am euh, da nga toll foo xam ne lu baax loolu rek moo la mën a sauver Isa ibnu Mariama naa kii rek moo ko romb mbaam xuux mu naan ko waaye jàllal ci jàmm ñu ne ko ah mbaam xuux mu ngay mu ne damaa bëgg miinal sama bopp wax lu baax rek waaye bu fekkee bu la mbaam ko nga saaga léegi tey euh, nit romb la nga saaga ko léegi nga saaga sa waajur mu ne ndaw lu am diine dafa nekkoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi xamuñ ci moom lu may baax ba mu demee ba dee jot ñi ko wax ko mu wax laa ilaha illallah mënu koo wax ñi indi ko ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ko laa mënu koo wax yonent bi ne lu ngeen euh, xam ci moom mu ne baax rek waaw yonent ne oo leen ma waajuram mu oo yaayam ndeke yaayam daf komere mu ñëw yonent ne yaay ji baalal sa doom ji mu ne ko duma ko baal yàlla bu ko yàlla baal yonent ne ko a ah, boo ko baalut safara la jëm de mu ne baalu ma ko yonent bi ne taal leen safara indi ko ñi taal safara mu ne dugal leen ci xam ne ne yaay ji xol bi du nangu loolu mu ne dugal leen ko ci safara si yaay ji ne baal naa ko baal naa ko waa ji wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah noonu la xaqi waa ji diisee wa ida qultum bu ngeen waxee bu ngeen di wax jot na فعدلوا نجان معا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الله